Euh, gannaaw biñu ñu leen nuyoo nag mbokk yi tey ñu am gan gu ñuy dalal euh, maître Moustapha Diouf lay wuyoo ñu gën ko xam ci maître Elage Hadji Diouf euh, mu nekk avocat à la cour nekkoon ministre de la république nekkoon député à l'assemblée nationale moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ak télévision futur média jiite itam parti bi nga xam ni mooy PTP muy parti des travailleurs et du peuple moom la ñuy recevoir mbokk yi tey. Euh, ci sen émission Faram Fatia ak télévision Futur Média maître ñi ngi lay nuyu Diouf. Euh, Pape euh, Ndiaye Diatta maa lay fay am mbégte mu rëy ñëw fi sa émission bi nga xam ni du ma ni guléet. Mhm, tout à fait. di am mbégte toujours di dajé yow ndax dafa yàgg. Mhm, depuis Radio Oxygène Pikine ba léegi. effectivement jaar wal fajri lu yàgg rek dëgg la ba wal fajri tout à fait donc mbégte laa am daal dajeeg sama rakk mhm. waaw ñu waxtaane ci réew mi dëgg la Diouf parce que réew mi moo ko jar Sénégal jërëjëf suma parti dafa nekk parti boo xam ni man damay am problème parce que chaque fois sax suñu militant yi bëgg a dem wax ñu ne non na leader bi ñëw parce que moo gën a mën a leeral parce que moo dàq wax kaar macha allah mhm. Sénégal yi dañu bëgg may wax di wax di wax ci réew mi ndax loolu tax suñu parti juddu mhm. mooy parti des travailleurs donc képp kuy liggéeykat ak kuy askan suñu parti dafa war a taxawu moo tax lépp lu xew ci réew mi ñu wax ci suñu kàddu joxe suñu position suñu jamono bi nga xamee ni am na ñoo xam ni dañu lëndëmal xel yi man fu ñu ko jéemee lëndëmale rek ma leeral ko incha allah rabbi maître vraiment man parti bi dama ciy désolé tout le temps boo koy wax mm. nga baal ma nag wax dëgg yàlla mm. mais parti bi à chaque fois que boo koy boo koy wax dafay dama ciy am dama ci am xaw am kersa. Mhm. parce que parti bo xamni vraiment amul ben amul ben rendez-vous électoral bo mhm. xamni def na ci succès. Mhm. man du ko mën comprendre. parti boo xam ni amul ben animation. parti bo xamni leader bi danaka ni nga ko waxee moom rek la ñuy maître El Diouf. xam nga parti boobu da fay melni dang koy mbubbo rek. la pour mën bok ci affaire yi. mais xam nga ni parti bi aussi vraiment li signifier signifié tekki bariwul. bëggoon naa vraiment nga nga nga gën ma wax leneen ci parti bi lu dul euh, ñoo fi taxawal xe liggéeykat yi ñoo fi taxawal. nangam nangam xam nga d'accord naa yow sax parce que parti bi dafa am retard ci fonctionnement am. Mhm. ndax c'est le jeu des alliances. benn Bokk Yaakaar depuis 2012 avant 2006 2007 j'étais dans le gouvernement de Ablaye Wade xam nga après je suis allé à l'Assemblée nationale mais 2012 parti bi boo demal boppam assemblée ba ñu di ñoo saboté plus forest donc rendez-vous électoral boobu dañ ko assuré parce que bi ñu gagné ak Ablaye Wade ba xam nga 2012 ak léegi maître. maa ngi ñëw fukki at yàlla la. maa ngi ñëw fukki at yàlla la. su xarit Macky Sall nekk au pouvoir ma ma ma ma def ci def stand by di nekk mu jeexal bi xam nga man ma jël 2024 ndax comme je l'ai toujours dit man candidat laa parce que gëwuma troisième mandat Macky Sall et je l'ai toujours dit. te pourtant maa ngi Benno Bokk Yaakaar dama gëm ne léegi nag ñu ngi commencé def liggéeyu parti dëggantaan mooy dugg ci àll bi parce que ñun dañ dugg ci àll bi en 2012 moment bu difficile ne ma du tax bokk Macky Sall avant bokk Moustapha Niasse Benno Siggil Sénégal ñu dem premier tour jël troisième second tour ñu ànd ak Macky Sall de créer Benno Bokk Yaakaar. ak Amad Amath Dansokho Tanorien, hein, Dieng ak Macky Sall Macky Macky 2012 Idy for président hein, ñoo ñëw ñu ànd créé Benno Bokk gagné ak 65 Nous avons ñu ci 3 mois 4 mois ñoo dañuy dem élection député ma attention man député kenn du ma ko may xam nga daan électoral la xam nga président bu gagné ba paré législative bo boo contre bo da lay je Idriss ci ci mais min nako vraiment. xam nga li nga wax ñi sétane sax min nañ. ko vraiment. tardé. non mais ma s'il vous plaît tout rek. non bi mais mané bon man dem so bop ma dem am plus muy 2012 alors que président mu ñu soko fal. après bu demee législative lépp lay ramasse mais man kenn dama dem ampli forêt c'est important 2017 ba demaat rebeloot aw ma dara ma takk soo bopp nag ndax amul benn bureau de vote boo xam ni amoon naa fa représentant lay ma lu tax 46 liste xaw ma 47 ay ma ne xaraa ñëw ñu ci benn benn bureau de vote kon xëy na am na coalition yoo xam ne dana dana ñëw loolu a ma taree bi loolu paree su ma xarit Macky Sall war def second mandat. 2019 2024 bëgguma gal encore. parti bi di liggéey ci suuf nank. ndànk léegi 2024 mu ngi parti bi dafa nar a présenter maître El donc ci àll bi li ñuy nga gis cadre yi wax jeune yi di wax communiqué bureau politique di wàcc ils sentir vraiment le PTP en direction du palais de l'avenue Léopold Sédar sagor parce que loolu amul séer amul caaxaan ndax gisuñu fi benn candidat boo il ni le leader du PTP mhm. ancien ministre ancien député avocat international chef de parti jusqu'à comme d'accord mais maître est-ce que y a vous allez voir est-ce que yaa ngi aller ci rendez-vous électoral 2024 Il y a ciy sóoraale image est-ce que y a un xel image euh, Yaku yaku mu am ba la est-ce que loolu yaa ngi koy sóoraale image non image où par exemple dit ko xamni euh buy wax lañuy japp ni voilà dafa am fu mu wala ni muy waxé amna ñu sam am dem sax ba di di ko est-ce que a ngi une image bobu pas waxé nan par exemple nan. ah waxé moy lén wax kuy wax dëgg moom da ngay déranger ñu bari wax du ci ñu parce que ma kenn nek sama nit duma la neexal deux lu ñëpp wax te ñëpp bëgg koo dégg dinaa ko wax moo population yi ànd ak man. wa mais pas ci ci lu xawa a comédie. Ah, ah, pas ci lu xawa a comédie pas ci lu xawa a jege. du ma def comédie wala luy. waaw waaw mais loolu indi lenen lolu pas ci luy jege. luy lo xam day friser vraiment comédie. lolu ko amul niveau moo koy wax. Mhm. parce que gis nga boy plaider. wala ngay wax pour mu dugg ni ki kon partout da ngay plaider. déglu non dama lay wax rek. non mais damay laaj ndax partout yo foo toog da ngay plaider. politicien day plaider. non foo da ngay plaider meeting da ngay plaider. dangay ngay wax population yi pour pour ñu nangul li nga leen di wax mu dugg seen xol bi mais bu fekkee li ngay wax safu leen amul xorom saful dara ah nga ñëw rek mel ni robot mais El Hadj buy wax nit ñëpp la preuve tey boo tey avant nga ñëw xam naa ni batt nañu record ci ñi ñi ñi ñi may nekk tey.

mais léegi dañuy fay ay xale ñu nekk ci réseaux sociaux yi ak ay ñu nekk ay Canada ay États-Unis ak man mi nekk Sénégal ki lu ñaaw lu nañu xëpp président de la République kon man dañu mën a bàyyi nag bàyyiwuñ kenn. d'accord bàyyiwuñ sëñ Bassirou Gueye procureur bàyyiwuñ Antoine Diome bàyyiwuñ kenn. d'accord mais c'est-à-dire réewane gi nekk ci dëkk bi mais malgré tout. mais yow bàyyi woo leen. ah non man nag. ah mais yow itam bàyyiwoo leen. ci wax ju ñaaw. non man de waxu ju wax ñaaw mënuma ko. non xam nga bu loolu amuloon plainte du la ci fekk jóge ci Ousmane Sonko jëm ci yow. waaw man plainte naa ko. non non xam nga. man ban wax ju ñaaw laa ko non da ngay non xam nga moom wax na ko ñëpp dégg. moom ban wax ju ñaaw xam nga da ngay wax na ko wax. non xam non wax na ko. naaf laa ko non non soo demee bay bay dugg ci moom. Ah. ci mbiru sexualité am booy dem bay dugg ci moom ci mbiru ay ay rebelle la ay ci wàllu xeetam ak leneen. ku nekk rebelle dañu wax ko. waaw ah, mais ku nekk terroriste ñu wax ko ku wa ku ootee motal combat ñu wax ko ku taal sama kër terroriste nga ku tàll sama kër ni mortal combat taal leen wàcc leen ci mbedd mi terroriste nga rebelle nga man am naa samay preuve maa ngi ko denc di ko nekk kon loolu jarul coow fii nag terroriser nit ñi ba genre yoo xëy na bokkoo ci xam bokk ci yenn journalistes yu ragal yi bu ñu nekkee émission dégg saaga yi commentaire yi dañuy ñuux seen geen du ñëwee tudd yii booyee bi dañ duñ la may jàmm yow xam nga damay bu dee damay fen ne ma met dangay fen bu dee booy mi duñu saaga képp koo xam ne àndoon moom nee ma mais loolu moom sama grand nga mais waxoo dëgg may naa la loolu billaahi may naa la ko bu fekkee ni am na benn groupe de presse boo xam ni ku fa nekk di journaliste wax loo xam da ngay attaqué Sonko wax ay bêtises am ay erreur am duñ la saaga rek nee ma nee ma El Hadj waxoo dëgg dañ lay saaga ba nga tooy même man gis naa sax ci ci yenn yenn yenn yenn kii organ de presse yi ay journalistes yoo xam dañoo ragal ragal ba wax il les terroriste. parce que boye mi dañoo ñëw réseaux sociaux yi a ku nekk 30, créer vingt trente cinquante faux comptes Facebook di saaga rek léegi nag bu dee Sénégal bi waaf man ma nekk le général du Sénégal en tant que député du peuple éternel député du peuple ma ne bu ñëpp waafee ndax bi Ils a Une guerre politique par mortel combat. 14 morts sur sur sur ordre de de de Ousmane Sonko mais c'est pas gratuit. la deuxième mais d'accord mais gratuit dara mais la non personnellement cet engagement n'est pas gratuit. mais je suis engagé. Non, non non. mais même mais na la politique aussi. non mais. ma suma mais ma vous <laughs> ak kii boo dé? je mais ma ak ma raw lu yeggali dama 14 morts sur ordre. nga taxaw guddi def conférence de presse ne du wujji indi ay problème Sénégal ba mu am fi quatorze morts nga taxaw ñemee taxaw dialogue Sénégal yi mu naan leen la deuxième vague sera plus dévastatrice mooy yow xeeb nga quatorze morts yi ay milliers de morts nga bëggoon mais kooku lan la ñuy wax bi ñu ko bàyyee jour bi ko Samba Sall yàlla ko yàlla yërëm bàyyee bu dem toog siège

ko waaw xam nga hein, Karim jaaroon ak Khalifa Sall mu ko politique ak prison ñooy ànd i ma ne sama bu baax bi na fi yàgg te wér bu baax mi Bachir ko wax parce que ku ne dem na fa waxu la loolu mais boobu kii wax bàkku yi doon bàkku di menacé boo la eh. d'accord rey baaxul. d'accord waaw léegi buy rey nag yow kenn ñu a yaay kat bu mag bi. ok man la pourquoi sama kër dañ ko taal. ci ci ordre am boobu moo gën a garaaw instant de criminel bu paree ci aji saar xanaa dana wéy si aussi chambre criminel boobu moom rëccagul lii nañ dem rek la guerre comme la guerre. d'accord nga ni juddoogul ma ni maître nga ni juddoogul ma ni la raw na la ci politique. nga ni non raw ma xam nga lu tax loolu nomination la. mais mais ci politique. li may wax loolu nomination la non dama lay non dama ni. mais mais maître loolu nomination la. gisoon nañ fii gisoon nañ fi.

kenn du jublu ba léegi nii ba ba ki dem moo Ndiaye. maître puis la génne assemblée. mais maître nga baal ma nga xool ma xam nga ni sa rakk laa est-ce que man am naa lu may ragal ci waxu. taxul may wax de. non dama lay laaj rek xool ma nga wax ma rek. yow waxuma la yow man laa wax. non waxuma la yow ñii ñu koy tuddu noo da nga ni da nga ni par exemple plus fort restam kenn ñemewu ko wax. non dama gis. waaw ah, man dañ ma ko daan rappeler tout le temps mel ni gàccee la. El Hadj Diouf plus fort reste mais kii mosuma dégg gars di ko renvoyer au plus fort reste au contraire

dirigé par Cheikh Mbacké Bara Dolly am na wala amul. Mhm. moom mu plus forest simple plus forest. bi ñu bëggee def Idriss Seck chef de la de l'opposition, opposition non non non chef de l'opposition qui ci assemblée ko war a jëlee ji. Mhm. ndax soxor ndax bëggul Idriss Seck am faveur yooyu Moi moo tax ba ma gisee ñu dem tuuti rek Idriss Seck dem au pouvoir c'est le chef de l'opposition, opposition ah ba léegi au parlement mon plus forest la fa il faut être conséquent moi tax ma ne moi, je mënuma raw ndax mën nga ñëw de en 2007 suis jëloon deuxième top ci Ablaye Wad. Niass jógee 17 5 Vous vous rappelez en 2000 2000 pile 2000 Niass dafa presque 17 ou 18 wàcc 5 pour cent en 2007 Ousmane Tanor Dieng mi incarne le PS amoon 40 et quelques pour cent taw Abdou Diouf ba ay 8 maître Idriss Seck mi nga xam li ngay wax nii xam nga ni yow. non non li ngay li ngay wax nii. ñi lay seetaan mais c'est important nga wax c'est important ni ñu xam ko damay wax dama fi nga bëgg a teg may ma rek. fi nga bëgg a pour wane ni moom ëllëg dafa war a am pouvoir du dëgg dama lay wax Idriss Seck en 2007 moo deuxième am 15 troisième 8 tanordien quatrième 5 pour 18 5 La dama réalité réelle inventé ma dara ñu 2012 je suis nga de mo un ci Ablaye eh bien alors qui est encore Macky Sall mi soog a ñëw ci Ablaye Wade Moustapha Niass jógee 5 suma la bayé ba suba mëno justifier que ni. Moustapha Ousmane Sonko raw la ci politique. rawuma ci la jëm si. c'est-à-dire la fi bàyyee ba suba toog di la déglu dama ko raw lu bëri dafa am lo xam ne aussi nangu ko nangu ko ñu avancer du ko nangu da nga bayé bàyyi ma wax. du parce que lu leer lay wax alors Moustapha Niass mi jógee won 18. garab ci kaw lay fekkante rambu na la d'accord na ma ñew ma ñew ngi ñëw Moustapha Niass mi jógee woon 18 ñew 5 Yegat 15 16 pour cent Tanor Dieng wàcc Macky Sall ñëw 26 ñess 5 2012 yéeg ba ay 16 nek 3e troisième ñu def ko président assemblée nationale kon élection c'est pas linéaire da ngay yeg di watch, ba nga donc qui a am am 15 dañu fa jël à peu près peut-être huit pour cent bu Karim Wade ak sept pour Khalifa écarté plus forest, 1%, un pour cent mu am au Sénégal ndax Karim bu jëlee li moom Khalifa Sall jël li quinze pour cent yooyu du amati un pour cent lay am am en ligne am ay télévision am journaliste xam nga ñu gëmloo nañu ni kii moo fi war a falu ëllëg am ay yambar yoo xam ne ñoo xam foo ne waa ji président déjà di ko di ko kii mais moom xam na ni muy pesé réellement xam nga li waral ay wallu yeewi d'accord mais maître xam nga ni xam nga manque de représentativité xam xam nga xam nga popularité dañ ci popularité dañ ci xàmmee leader politique absolument xam nga ni bu génnee jaar fii nga génn jaar fii ñëpp topp ma ba ko maintenant ak laaj ma dem Mimi Touré mi jiite woon campagne législative ma ànd ak moom ak Talla Sylla Macky Sall nañ ko gunge ñu def tour du Sénégal amul benn dëkk bu taxawul Mimi mu ngay déglu moo ma ooyee la star du convoi fu ñu taxaw nit ñi bu seen daw fàq bu dal si ma amul fu ñu taxaw amul Fuuta amul Bundu ñu Bakel amul ay añaam les añaam yu bëri yëpp amul ay Ourossogui amul ay Kédougou amul ay Goudomp amul Ziguinchor amul usu yi tabskiriñ amul fu taxawul barke alquran laaj ko Mimi Touré mu laaj ko té maa publiquement ni ñu ngi déglu dafa nak malaw légui ci staffam la bokk laajal Abou Abel Thiam mi nekkoon aussi ci convoi bi sama popularité dafa dépasser bor foko xalat ki kii man dafa defoon tour du Sénégal aussi à l'époque dem en plus forest sama candidat yi ma amoon daanee département ñu nga fa ba léegi dañu xawoon a tëdd mais ñu ngi jóg pour léegi nag popularité El bi nga xam ne amul morom Sénégal xanaa boo yëkkatee Macky Sall ci popularité man man nga ci teg xanaa ak Sadio Mané même Sadio Mané maa gën a populaire je te le jure lu leer laa la wax. Youssou Ndour. du ma moromam Youssou Ndour

ñëpp ragal ko quoi da ay boy band yim andal ñuy saga rek mom ma chef sen chef mom moy mom moy moom orchestre mooy chef d'orchestre bi c'est le président des instructeurs publics et vous le savez. d'accord alors maître. man day wax deug yalla dégg ko mu ci le dëkk non man dama ni. musuma ko dégg mu saaga. saa yu si ay Macky Sall Antoine Diom lu ne ak Bassirou Gueye ak sëñ Bassirou Gueye même président UMS Ousmane Chimère Diouf ñepp lay saga, même feu Samba Sall. même du Seck ñëpp la traité de marionnette de xawma lan comploteur ku ne saaga na la ya yàq sa der ak mën yàq der Mamour jàlloo bi nga xam deful dara mu singali ko mais ak ñeneen ak ñeneen mais kii ni mu ñeme ñeme àq. d'accord alors man maître dafa am lu ma bëggoon mu leer ci ñu bari. Mhm. yow bokk nga ci ñi nga xam ni yéenay layal Adji Sarr. Mhm. mais li ci jaaxal ñi parfois dañ lay laaj aji saar nga ne nañ ko laaji mbokkam parfois ñu laaj Adji Sarr nga wax ci. lan mooy indi loolu. waaw parce que ça dépend ci façon laaj bi bu dee nag may laaj aji saar ci côté boo xam ne daal aji saar ah, warul def lii wala na ñëw def lii wala waratoon a wax ma ne eh, wala koy bokkam man aji saar dugg sama kër moomu ko commandé wu ko ba ma laaj aji saar ndax mu ci jàmm ma ne la mu ci jàmm mhm. ndax pare na pour tontu ji ma ne waaw parce que wax dëgg day tontu ji ëllëg yooyu dama ci tontu noonu la demee. d'accord maître beneen affaire itam bëgg naa ci am sa xalaat. Adji Sarr bi muy wax dafa ëmb yaa ngi taxaw bi muy wax ëmbul yaa ngi taxaw ñaari image yëpp man teg naa ci sama bët image bu njëkk bi ci interview bi mu def ak leeral la ñëpp dégg nañ ko bu mujj bi devant tribunal la bi muy wax ëmbul lan moo ci am ci loolu. wedd naa la Khalifa Diakhaté moo ko posé question bi sama kër TFM ba léegi ñemul teg interview boobu mu enregistré sama biir kër.

du ma ci tontu. non sama patron yëg ni damaa ëmb wax na ko. waaye loolu bi ndey xadi loolu kaay ma la xam nga fan la ko waxee. xam nga lan la waxee lu yéen ëmb gi ba mu demee gendarmerie ñu di ko laaj. <clears throat> ca la waxee ni pour mu génn dafa ne dafa ëmb mais loolu xam ñu lu fi rek di expliquer fond dossier bi pour mun a am parce que kuul fu lay nekk am na kilifa xanaa na taal kilifa gi nag fii laa jëm te booba.

salon lu mën a doon coiffure rek salon tailleur rek kuur foofu jotee ñëppay tëj ñibbi wala. yan maa wala déet. non mu wax lu dul dëgg. non dama laaj. non oh. nee ma nee ma bu mu kuur foofu jotee ndax duñ tëj bureau yëpp ak service yëpp. dégg nga toog nee ma waaw. d'accord waaw d'accord léegi comme ñëpp tëj nañ mais moom sañul tëj ndax dañu ko na nekk seen yàlla. te xam na ne yàlla boobu bi ba décidé na pour bu ñëwee bu ko defee li mu koy def. mu dem ci yoon dem wuti preuve ci tàng tàng bi balaa preuve bee dañ su la demee CTO mais pour mu génn kër gi ci biir couvre-feu bi ci guddi gi. dafa wax lu dul dëgg. dafa kàcc maanaam dafa dem. Mhm. ki ko def jaam. day xaar di jaay jëkkëram mu ne ma dama yaakaar ne dama biir sama biir baa ngi metti il faut ma dem seet ko mu ne waa toog lu lay boobu la pour mën a génn pour njaam gi dañ. njaam moom noo mën a pour génn ci da nga ko def. d'accord kon felul yàq yàqal kenn. fen buy defar a gën nee dëgg olof jaay ne fen buy defar moo gën dëgg wa danaa ko dégg de fen buy tax nga jógee ci njaam ñëpp tëj yow kenn ngay liggéeyal koo xam ne sa yéen yàlla moom moom moom daal bu ñëwee ñëpp dañu nekk jaamam ñëpp xam ne kuy liggéey couvre-feu sax yow yow it nag kan mooy liggéey couvre-feu xanaa moom rek jaam bi moom jaamu ne Khady Ndiaye ak Ousmane Sonko mu ne il foo mu wut lay pour mën a génn pour échapper. C'est la ñu Nous rek ñu ñu leen ku bëgg rek tayx tayx yi bi ko sama kër ko da mu parce que stratégie la pour génn échapper pour mëna preuve immédiatement mu ne dem CTO non la démé maître amna laaj buñ ko laaj. Hmm? Ousmane Sonko moo ko révélé. waaw man laaj hmm? avocat kenn ci avocat Ousmane Sonko yi laaj. <laughs> wax ko làkk ko français mu ne ko moom jàngul mu ne moom jàngul ci koo xam ni dafa def plainte laaj boobu xam nga laaj boobu du laaj bu ndaw laaj bu mag la laaj boobu est-ce que du tekki ni li ñuy wax ni complot am na ci am na ndax am na ku ko bindal plant bi ku dul moom ci boppam maanaam am na avocat bu ko bind ñu ngi ci doon tudd metre Gabi Sow ak keneen mais est-ce que jàppaloo ni laaj boobu ñu ko laaj loolu lañ ci jublu woon pour xam ni complot am na. ba moom dem ci ay avocat yu ko biddal. man dal man dal da foog ni sénégalais yi ndeysaan sen xel dañ ko dañu ko capté yow kenn amul dara wax keneen mu bind la plainte ndax mënoo koo bind sa ñanga yegul fofu non loolu ñepp gis nañ ko. moom la ci police da ngay gis ñu tok di bind. mom la def mais la tax ñu wax ko moy dañ ci dégg turu avocat parce que xam na ni mënu ko bind ni ñu koy bindee mu dem sét avocat mu bindal ko ko dañ koy aaye. non kenn aayewul loolu avocat bi loolu ko bindal dañ koy aay loolu la mooy complot. non yow ñu ngi lay teg loo xam ne mënatoo ko supporter nga wax ko ay nit ñu ne la boo ñëwee ñu defal la bi loolu ku la ko bindal day comploté waaye nañ bàyyi bu ñu bëgg a def nit ñi ah bon ko mënoo bind moom lim jàng yeggul CM2 dam jàng ci tubaab français bëriwul donc loolu pour mu bind plainte xamul nu mu koy bindee du dem seet l'homme de l'art ki ko mën mu bindal ko ko dañ koy aaye loolu mooy complot. yow nga bëgg ci ànd yow. yow xam xel ëpp loolu. yow xam nga ni yow avocat nga yow xam nga ni avocat bi avocat bi posé question boobu xam nga lim ci bëgg xam. xam nga ko dama ni la dama ni la amul li mën a xam dama waaw loolu yëngalu ma parce que daf ci am droit dafa am droit am lu ko metti mu bëggee a porter plainte seet ki mën a bind plainte avocat wala kenn ku mën a doon ku dégg droit mu dem mu bindal ko plainte bi mu déposé ko ana complot bi nañ bàyyi bu ñu tafloo nit ñi.

léegi suba boo ngoo jot di manipuler nit ñi rek allahu akbar lu soo yéen daal soogoo moom seen yàlla la daal lu wax rek ngeen naan ko <coughs> ndox xam daal parole d'évangile la eh, eh Pape xamoon naa la plus critique Pape kay nga bàyyi di ko nii yaa ngi bàyyi di ko de gën a gaaw wax noonu. maître dama ni Ousmane Sonko li mu wax. lu wax noonu la loolu non dama ni xam nga yow yaa may wax noonu la wala du noonu. du noonu non waaw loolu laa bëgg a dégg. du hmm, noonu li ma la laaj. day manipuler leer la xam nga li ci dugal su demee bay laaj. juge bi. nañu déglu ku mel ni Mamour Diallo. parce que am na lu mu ci dégg. dañu dégg benn ojo bu ci Mamour jàlloo wax. bu ñu demee ba dégg. Hmm? lu mu lu muy laaj ku mel ni MC Niass. dafa am lu mu ci wax ñëpp dégg ko. bu ñu demee ba moom mu personnellement mu wax ni ba ñu dégloo gynéco bi. Hmm? muy Alfousseynou Gaye hmm? la mu leen wax mooy. Mamour Diallo ànd na ak avocat bi di ma woo téléphone di ma laaj. loolu ku la ko wax. mais loolu dégg nga ko yow itam. soo ko déggul yi wax yii di wax lu leen neex rek. kon daal yow yow dossier bi yaa ko gën a xam. man du ma jox ci dossier bi ndax. waaw man wax loo man ñëw ma fi en tant que avocat. non maître loolu leer na en tant que chef de parti def ci réew mi. mais li ma la yëgal mooy. li ma la yëgal mooy ay waxi ñooñu yow du dégg dégg ñu naan fi amoon na jàppante ci biir bureau juge bi nee sa sax PV enquête préliminaire dafa réer du Bassirou Diomaye ko bind ñëpp gis ko ci page

nee na loolu de décrédibiliser ay leader toll ñoon noonu ku ñaan bu fi Ousmane ko jógee yaay numéro 2 et cetera ngay taxaw di fen fen yu réyee noonu ah naan PV daakee bi dafa réer moo ko bind alors que boobu machine bi moo amoon quelque problème ndax dafa am greffier bu bees bu minul machine bi. loolu Sonko expliqué na ko dégg nga ko. waaw man inter ma yow bu ma wax loo affaire Sonko mooy kan. bàyyi di wax Sonko. bu ne ma affaire Sonko. mooy moom. Sonko mooy seen yàlla yéen léegi mais man du sama yàlla dama may ma tuuti rek donc son numéro 2. mi ngi bëgg a nekk sa yàlla de. yàlla ci ban man benn yàlla. yàlla non mi ngi bëgg a nekk sa yàlla àll rek àll. xoolal non ngi bëgg a nekk sa yàlla rek xoolal moom. dafa nekk lu ma rek foofu Bassirou Diomaye moo taxaw bind kàcc ni Sonko ni d'abord Sonko jàppante foofu. Mhm. ak Adji Sarr ce qui est faux. bi euh, doon amaat mu bind enquête bi dafa réer. comme comme waxi Sonko rek daan dañoo ra euh, Bassirou Gueye dafa changé PV bu njëkk bi xam nga loolu la bëggoon dëggal naan PV bi dañ ko falsifié. dañoo mën a kàcc ci la ñu nekk rek manipulation. non loolu Sonko waxu ko rapport. gendarmerie moo ko wax même avocat. rapport ak dara. loolu ci. ok waa ji rek la ba bëtam yi kon léegi kii ci boppam euh, comment dirais-je avocat Sonko bi ñu génnee nee nañ benn histoire amul entre Adji ak Sonko waxuñu ko. loolu ci Sonko laa ko déggee. waaye ñoom ñu wax ci xalaat doo xool télé man laa la wax ci Ousmane Sonko laa ko déggee day mbir soxla ma Sonko di ma informé d'accord man ci moom laa ko déggee waaw moom moo ni moom moo ni benn coow amul ci seen diggante yar ak teggin la ko aji saar woon ay avocat la njëkk a laaj avant muy def conférence am boobu mhm. ci buntu tribunal bi mhm. Ousseynou Ngom di loolu amu fa mhm. te avocat Sonko la kon numéro deux Sonko fen na kon parti am fen na parti boo xam ne fen na ko lal ak ak manipuler nit ñi rek mais moom

confrontation pour ñu ñu leen bëgg confrontation du preuve de. dégg naa preuve bu ci amé pas non preuve non du confrontation Nous ko de. amu amu droit xam nga confrontation définition d'un texte, dictionnaire même ñi dem instruction yépp du ay ay preuve preuves. kay. non yow des accusé. wa du lolu sénégalaise sénégalais permettez-moi de vous expliquer ce que la confrontation dans le bureau d'un juge d'instruction. C'est quoi C'est quand les déclarations sont contradictoires. Il y a contradiction. Moi, je suis laajee kii lii la wax suis ñu laaj ko mu wax mu am suis woro ñu ne leen waaw yéen fii. maître wax ji du benn fii xam nga ni ay preuve yàqu ko. waaye preuve yi déglu ma. non dama ni ay preuve yàqul confrontation. c'est-à-dire preuve fa yoon. preuve yi Adji Sarr doon wax. preuve avant ci ay vidéo ak ci leneen. mais dañ doon xaar par exemple loolu mu teg ko ci table juge instruction du atte. preuve yi à la barre du tribunal koy génne. waaw d'accord dama lay jàngal tuuti droit. amul problème dérangé wu ma loolu. dama ni la. waaw ñiy wër di wax comme Sonko ak ñooñu di wër di wax. ñoo gën a ni confrontation du affaire preuve confrontation moy dañuy xol seede wax ndax ndax and na wala na fu mu d'accord dama bëgg Sénégal mu leer. d'accord confrontation moy ki wax na li ki wax lé ñu xol fi wax ji woro ñu xol ñom ñaar kan mo ne waxul dëgg ay wax waxuma may bërëb dé mais comme ki lank na du tontu Sonko moom déjà confrontation jarutoon muy am parce que mom du wax xëy na juge bi na ni non comme bañal na ko bu njëkk. <clears throat> bu njëkk bañal na ko tontu xëy na bii paa dina tontu bii paa mu ñëw. maître tontuwul juge bi tontuwul procureur tontuwu non maître kon confrontation moom moo ko yàq. maître maître Ousmane Sonko. Adji Sarr tontu na juge bi tontu na procureur tontu ma. maître bi question ay euh, Sonko mu ne du tontu. non non yemul ci du tontu am na leneen lu mu la wax. nee na yow waratu waroo nekk avocat. waaw waaw pas légitime. des avocats yoo ñàkk fayda dañ la condamné Paris man do am wax ak yow du ma tontu. avocat boo koy nekk du moom moo wax war naa koo nekk wala waruma koo nekk ku yabaate la jokkute un des avocats la njëkk a saaga saaga experts yi saaga notaires yi saaga magistrat yi saaga procureur de la république saaga doyen Antoine Diome Dior Diagne ku ne lay saaga respecté wu doomu aadama xalif yi mu di leen saaga sëriñ si mu di saaga bawul kenn kon. mais li mu lay wax du condamnation bu mu la jox la nee na. la ko jox nga gis. non non dama ni dama man joxuma dara d' parce que sequma ak moom parce que man owuñu ma maag moom xam nga il veut créer une affaire dans l'affaire. man owuñu ma maag Ousmane Sonko pour ñu gënante ay preuve <laughs> owuñu ma ma ne Ousmane Sonko pour duñu confronter ñun ñaar muy génn ay preuve contre man yow boo ko waxee sax tuuti ma xawle ci xeeb sama jeune frère N'a xam nga confrontation man bokk ma ci du du ay document dañu wuti ay contre man kon man lañ confronter pour gagner procès maa ngi moom dañu am procès devant le doyen des juges a fayda non daf la récuser rek. récuser avocat jàmbur récuser juge il n'y a mais pas avocat avocat ki ko wóolu moo koy jël mu liggéeyal ko man pas kon récuser Je droit ah, non non maître non mais mon argument il mu teg mais ne dama la da jaay comme nous le ci dañ koy hors sujet yaag aji saar aji saar wax na lii yow lo ci xam mu ne pat aji saar nee na lii mu ne pat aji saar nee na lii mu ne pat juge bi la ko yëpp tollu ci dara loolu mooy confrontation. yow nga laaj ko lan. man loolu bëgguma génne secret. ah non li génn bari na itam. xam nga ñun waxuñu ñun li public la wax moom day génne mais li publicul kenn duko wax. amul sañ-sañ wax mom mom dafa yabaate. waaw mom day génne rek. mo tax di ko tontu d'ailleurs di ko politiquement mais pour ma dugg ci dossier bi yoyu ça ci du def erreur que cest dire sanction ngay a jëlati rek. waaw lay ah. mais mais c'est normal. non c'est vrai yo bëgg juste que la non non non non. wala que bëggul dara ci kër gi ko def non non avocats que bëggul que yi man dama ko mais li ma dal moy dang ko nga koo ko ñu la sanctionné ti la. pas ba sanctionné ma suma ben Ben, secret instruction j'ai jamais été sanctionné à cause hein, d'une violation du secret d'instruction ma mais maître sanction bu mujj bi nga ci jël ci lan la des avocats Euh, Hissène Habré bi may xeex ak policier bu nu këram ma war ko défendre ñu ne ma doo dugg ma ne jaral dama sama bakkan ñu ne ma avocat wu dem di xeex ma ne bu ma bëggee def sama liggéey abre yaakaar ma ma ñu ne instruction acte bi war a def war naa am avocat bu ko fekkee. non ak robe bi. ak robe bi ak robe bi nga nekkoon. xam nga robe bi bi. waaw xam nga lu war a loolu dama ñëw ak sama costume vert rafet service gàddu sama 4x4. ñoo ñoo présenté sérieusement ni leen correctement dama bëgg a assister sama client seen abré xoolal ñu ne ma noo doo fi dugg ma ne mais policiers yi xanaa xam ñu leen ne avocat client na bu nekkee instruction lépp lu ñuy def dañ koy oo mu toog fekke ko parce que bu ñuy fuyee këram perquisition mën nañ fa dugal yàmbaa mën nañ fa dugal ay feta ne ko yaa ko moom donc avocat da ko war a fekkee d'accord léegi bi ñëwee ne ma doo ko fekkee waaw man ne xëy na ma sol robe moo tax te comme accès d'instruction la. waaw robe laa war a sol. ma jëli sama rob sama oto pour ñëw dugg liggéey fekkee liggéey bi. yéeg ci kaw taxi bi. waaw bi ma solee sama rob yéeg ci kaw taxi bi déglu ma non loolu dafa lu ko waral bi ma solee bi dafa lu ko njëkk. ma dugg ci biir ma ma ñëw. yéeg taxaw ci kaw taxi bi. waaw maa ko assumé mais avant loolu dafa am lu ko jiitu. ak robe bi toujours waaw waaye Pape xalaat bëgg ko xam. bu ma nee may leen man damay assister sama avocat sama client ñu bañ. mais nag xëy na li ma solo robb tax joxuñu ma cër dañ ma yemale ñëpp parce que avocat bu solee robb lay nekk vraiment avocat ma dem sol sama robb ñëw ni leen xanaa léegi leen ma bàyyi ma dugg ñu ne ma doo fi dugg di ma wax maa ngi ñuy bëxante boobu bëggoon naa wane maa ko tey bëggoon naa wane ni violé nañ les droits de Hissène Habré mooy droit le droit d'être assisté par son avocat moo boo yëgee taxi bi aussi pour wane pour preuve laa bëggoon wane ni bi mu ñëwee pour assurer sama client ñu bañ ma sa robe bi. ñu bañal ma ko. ISRA bari nekk otage ci biir ñoom ñoo ñu wër ko yëpp arbis koo daa avocat warul fekke loolu metti na de mun nañ di jaral na ma dee tey ndax ki ma yaakaar ñu xañ ko sama présence di ko noggudu ci biir këram te yoon ni lépp luñ koy defloo lépp luñ koy laaj dama war a toog ñu ne ma doo toog ma def scandale boobu ñëpp yëg ni après bi def fuy pour buñu ay wala dara taxal ko ñu xam dañu violer ay droits ñu annuler PV PV de perquisition bi yëg taxi des je cherchais des preuves pour annuler toute la procédure Bon, affaire dof dé légui nak gars ci biir euh, avocats yi am ñu comprendre ñu ñu oma laaj ma man leen li la ko Ils ñu né bon suspendre les 3 mois grawul assumé nakol yag na man man damay mais masuma violer secret de l'instruction kenn masuma de ci loolu masuma nekk xaalis sa client aussi suspendre ma kon man damay def sama liggéey correctement macha allah mais moom naa way demande naa ñu rajo ko moom bu ñu may rajo moo koy demandé avocat yi ñàkk fay c'est-à-dire que léegi mosul wax loolu de ah? mais xam nga ku ragal da nga problème moom El la ragal yow nga war a wut ay preuve ñëw pour seetal sa der nga indi ay document kon El Hadj pour rek du fekkee sa procès ndax xam nga ne procès bi bu taxawee yow dèjà yaa ngi yaa ngi tremblé moom rek nga ragal taal nga këram faalewu la jël nga une armée de mille personnes di ko saaga suba ba ngoon jot faalewu leen ñu ne comme ci saaga doyul nañ leen rey ko ñu ñëw ak ay jaasi ak safara ak pétrole jël rajo sama kër ba baris taal ko wala dama ko sos taal ko ni kii dana dellu ginnaaw sama mbokk yi ragal daan waaw lii lu ko fi jar aji saar jaru ko li ah, ah lii benn client jaru ko bàyyi génn ci ma leen génn man man man man man ma noonu nag man dama ko jox xoxatal kon man jéem nañ ma def lu ne pour ma génn ci dossier d'accord maître léegi nag nee na mu ngay seet ay areeg mu ngay dem fëleeg mu ngi seet ay xaritam ak ci xëy na ca baro bi am ci ñum yaakaar am avocat yoo xam ne moom lañu àndal am na ca xëy na ay militant ñu ne nañ fexe nuñ dàqee El Hadj Diouf comme ça ñun ñu am jàmm nag d'accord alors maître kon affaire bi yam maître kon affaire bi yamatul ci défendre ce client mais daf ci am règlement personnel yow ak Ousmane Sonko loolu la xam nga non non non dama lay laaj ndax dama ni au delà de défendre ce client daf ci am règlement personnel non yéen ñaar waaw am na parce que man dama feet ko taal sama kër ku ne am naa parce que porté naa ko plainte pour incendie criminel moom nee na porté na ma plainte moom li mu def moo gën a garaaw ay booyam ñëw taal sama kër te moom moo joxe mortal combat moo doon da doon taal dëkk bi au champ ku ne ñu nañ taal total ñu ne benn liste Dior Diagne El Hadji Diouf kër Antoine Diop ñu taal ko xombol kër Mansour Faye Saint-Louis kër Birima Ndiaye mii fii di ñëw ci émission jàkkaarloo parce que ñooñu ñoo ñem bon bu dee ci mbir ma ak El Hadj ñoo ñoo ñemoon wax à l'époque kenn ñëwul tudd Sonko boobu loolu ñun ñaar ñu bëgg a dëkk bi moo tax ma ne c'est des terroristes c'est des terroristes terrorisés kenn ñëpp di pat pat pat ah booy Sonko yi dañoo garaaw même la preuve bu ñu koy au tribunal xoolal xoolal dafay nekk ci ay policiers xoolal mbedd yi ñuy bloqué ndax ay booy bandi la yore qui sont de de tuer à tout aj Adji dafa am dafa am surveillance policière 24 heures sur 24 ne kon ñu sàkkal ko pexe man de aussi dama sama garde rapproché yow bu ñu demee ba Sénégal amatul sécurité ndax ndax Sonko ku nekk ragal di wut ku la garde avant loolu Sénégal réew jàmm la woon ndeysaan mais xale bi bi mu duggee ci politique ba léegi seytaane seytaane bu rëy la rey leen mortal combat danañ jëla seen bakkan la deuxième vague sera plus dévastatrice yéen rebelles yi déglu leen ma

parti bu doole parti Macron ëpp doole parti socialiste bi amoon doole ak parti euh, qui de la droite là les républicains ñoom François Fillon ñoom JP mais bim ñëwé wala bu la na leen. comme comme ko ëppalee ndax discours am. ngi ndax discours discours bu bon bim yoré comme discours du Sonko dafay France jógee moom it day na fi Sénégalais yi ak africains xam nga euh, discours yoy euh raciste yooyu yo yo la développé mom mo Guy France dégage ci yo cooy nekk ci naan day day day bu ñëwee résilier les contrats pétroliers il signé ak ay France ak yooyu jox ko ñeneen parce que France wax wax yu ko neex donc Marine Le Pen. diaspora bi and ci ak ñom d'accord parce que ànd ci ak moom d' hein? il passe de la diaspora. Ah, mais diaspora bi and ci ak dañu neex a nax ndax boo xamul réalité ko xam mom moom addinaam yëpp manipulation la mën nga tomber dans la manipulation ba may leer sa bopp ñu bëri la bi ma demee Paris ça fait une semaine laa ñibbisi juste je suis rentré le le 25 de Paris sama doom amoon doom muy sama sët léegi ma ngi dégg maam ah sama macha allah sama premier sët après ñu tuddee ma doom ji muy neex lool il fallait que ba dem Paris kon du dëgg. événement bu neex la woon ba dem bon maa ngi nuyu sama goro Jibi Sène sama doom Antoinette Diouf. dina nyala ak sama do Arona Mustafa, Diouf ma Arona mustafa sen jibi sen la sant d'accord ma dem ak sama jabar ila di ànd Paris mo jabal jitu jiitu dama koy yebal pour fekk tuddu bi man après la dem du sama do sama jabar bi sama doom bi aussi da ci sama jabar dem kon man dafa am numay doxale Mandemagum man dama gem sama rew man dama gem solidarité humaine man dama ce n'est pas pour me vanter mais yo pas xam en tout cas ce discours ci Ousmane Sonko est yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo événement yow mi xam nga ci dara. dëgg la. du ma lim kenn nag parce que bu def di ko wax baaxul def dem naa dëj diw dem naa kii diw du ma ko wax mais xam nga dama nit ku baax laa nit ku solidaire laa nit ku fonk doomu aadama laa wala déet mais bu ma gisee safaan bi gis ku ñëw ku bees te bëgg a taal réew mi déjà taal na ko ñuy wax mu ne danaa taal ma yore naa fii kii bi mu ne danaa ko teg sax mu ne wu almet bii taal dëkk bi am naa ko. am na béy wax boobu ma ne kii rek il faut xeex moom kii moom Sénégal la bañ Sénégal rek la bañ mu ngi ni mu ne mu ne am na bii taal dëkk bi am na ko léegi day taal dëkk bi yéen du ngeen koy suivre na nga que loolu moom intéressé si moom. yaa ngi naan doo ko yaa ngi da nga koy suivre. non li ma mooy. fu mu doo ko déglu. doo ko doo ko lijjanti non dama lay woon dama lay woon ay waxam fii ah. waaw ay waxam génne léegi voilà. dañ koy jagleel benn nit ci ci askan. fii xale bi. nu mu toll. bu recevoir imam neen maa dem jox li événement yi moo xam màggal moo xam gàmm moo xam lii lii war na dem. gravité loolu c'est-à-dire Sénégal il faut ñu njëkk xam combien c'est grave ça. parce que xaalisu ay néew du doole yu ñàkk su bu ngoon la ñu dajale ko ci suñuy dënku war. fii. non mais maître fii xale fi soo gisee ma lay déglu. c'est parce que da nga ni dafa wax ni almet bii taal réew. maa ngi ñëw maa ngi yëpp man loolu mosuma dégg mu wax. loolu moo ko ni wax na ko te man mosuma ko dégg dama la koy tegal mosuma dégg fenn waxee ni almet bii taal dëkk bi yore na maa la koy tegal kii koy bu la dara metti maa koy tegal en attendant nga koy trouver dama bëgg nga tontu ci leneen s'il vous plaît léegi rek ma tegal ko léegi salaamaaleykum ma tegal non amul sarax ma maître soo bëggee jàppoo nii dafay xaw a. non may ma minute minute minute minute minute minute minute minute rek minute ngi ni fii la koy waxee. sos suba ngoon guddeeg bëccëg ànd naa ci man. te sax àdduna kenn du ko dajal ku dul umpale dañu lay ragal faaw nit ku ne am muy teesal ngir bu ëllëgee. man mën laa seetal fu ne nga nekk fa fu ne nga dugg jëw hey naa nga dal jóge man wax daa leen ko dinaa leen ko waxaat bañu ma ku ma ne ay day yee fitna wala dafa violent bu dee réew mi dafa nar a tàkk sax na tàkk moom daje del suraale ñu fi la ko waxee. naa fexe ba xajabal ndam gi. naa fexe ba bool bi naa ko xajamal. almet gi ma doon wër boobu ba léegi pour taal dëkk bi almet boobu jot naa ci. naam dem naa fa vingt et une parce que li ma yëg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa ko xam. d'accord maître pardon maître est-ce que xam nga lii nga wax ni tekkiwul li li nga bëgg a wax yow. du lii ma lay wax nii lu leer ah. lu ma nee na non c'est-à-dire non non. xaaral Albert Jim la wut pour taal dëkk bi am na ko. loolu laa lay wax nii xam nga ci ban contexte la ko waxee. ah da koy défendre. non non waxuma défendre. ah kii mën na ko défendre. non waxu jéemuma koo défendre. géem ñoom la génne ci li nga li ma dégg laay wax sama xalaat. li fi wax yëpp ci affaire taal dëkk bi li ma li ma dégg man. li ma dégg jéemuma koo défendre. li ma dégg laay wax sama xalaat. ndax xam nga ni lu mel nii yow mën nañ la ko tegal fekk na du lii nga bëggoon a wax xam nga loolu damay bañ ëllëg mu dal la nga ni nga ni dal na ma dégg crise sociétale. parce que ku ñàkk fulla ci sa bopp surtout amdaou ndaw nga société bi soxla na la mais pas ci xeex a fulo soxna la pour la construction de la nation say waajur soxla nañ la jur nañ la yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga war leen mën a dimbali yow amo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien bo xam ci jamono ji mu lay pour nga xeexal ko moom doomam ma nga Canada wala États-Unis tëdd nga dem di rey sa bopp ci loolu ñooñu lañu war a waxal tey man aw ma je n'ai rien à dire aux politiciens yi sikk nañu ba noppi mënoo dara si ñoom mais jeunes yi leen di topp au nom de quoi et pourquoi di génne ay jaasi di tëb di dal ci loo xam ne politique du loolu politique maître mais lii discours bu njëkk la woon. mais ma dama leen dama leen chronologie bi. d' accord lii la bu bii soo commencé. mais non non non li nga teg nii rek non non maître maître lii la njëkkoon a wax. waaw d' léegi dañoo dañoo dañoo génne yu njëkk ya ci léegi dina koy booy wàcc leen Mortal Kombat. d' accord bii bi mu koy wax en 2014 la. maître bi muy créé mu ne moom affaire bi idée la du affaire xeex. d' mais maître. man dama yëpp la chronologie.

lila la bu ñu mu ne politiciens yi ñu débat di dee waram mais bërki dee moo njaay la wacc def na d'après guddi ne wacc leen ci bedd bi dé pour man kados mo am discours bi mun naa la won fodé bi bo boy la mu ngi ni ima xol image bi mu ngi ni c'est bon. donc ki gëmul dara day wax rek kon bu ñëk la gëmul gëmatu ko légui xex la gëm légui rayanté la gëm légui buñ ko oyé tribunal. da dañuy dañuy barricade si maanaam léegi affaire banditisme la ñuy jaay. d'accord mais maître yaakaar nga ni régime bi mais il se contredit. non non maître que yaakaar nga ni régime bi nii ñu taxawee tey jàkkaarloo ko ak ñii ànd ak Ousmane Sonko tey maa ngi dégg ni jàpp nañ Fadilou Keïta jàpp nañ ay garde corps Ousmane Sonko jàpp nañu ñu bari ñi nga xam ne ñi ngi doon ànd ak Ousmane Sonko ndax jàpp nga ni lu mel noonu. ñoom dañu war a taxaw rek taxaw di ko xool di seetaan loolu loolu kenn xamul fan la jëm ak ñoom. waaw xam nga yow.

mais son xarit nek du pouvoir bi nek APR nek PCA ancien directeur du Koudou, ancien chef de cabinet du premier ministre Macky Sall est Ndour pour affaire viol il est présumé innocent chez Yérim Seck il est accusé viol moom la mais est ko ah mais mom ñu ne ko wujji tal bi pour bëgg am mais contrôle judiciaire lu kenn mësul gis mu am privilège Um avantage bu ko bu ñu mayu keneen Sénégal. viol yi nga may wax yëpp ndax doole ji mi jaay viol yi nga may wax yëpp dégguñu ci ay responsable politique yu nekk ci ginnaaw ay oto bu dem jëli ku jigéen kàkk par ay Mamour Diallo ñu tudd ko ci yooyu Mamour Diallo ñu génnee. waaw ah non mais mais maître. loolu naa ci expliqué après bu ñëwee mais mais man maa ngi plaider viol fan nié prison lañ jógee même tentative de viol dañ la prison nous avons liberté provisoire parce que c'est un crime le viol a été criminalisé au Sénégal vous ñu accuser vous accusé moi début de preuve rek dañ la yob ti moom weddiwul ni dem na sud Beauté weddiwul ni goudi gëm fa démé kay bu loo wane ne am na benn kinésithérapeute fajkat bu nekk foofu. loolu du début de ki moom moom dafa feebar bàyyi ma teg maa déglu. yi yow un faisceau d'indices concordant ku jóg guddi ku war a jóg bu dem àll foo xam ne ka war a faa boo a tëj ndax ku wër fu nekk. parce que député nga am nga droit génn nga génn. loolu loolu ba ba léegi waxagoo ma début de preuve. waxuma dama ne bu ñu la jiitee jiinee jiinee viol foofu. waaw te ni nga ko waxee nee nga am na oto bu jël si xale bu jigéen bi ci tàng tàng bi yóbbu ko. waaw.

non non loolu kenn du ko liir pourtant dañuy liir dañuy tëb. yow non li ci mujj. non avant li ci mujj li ci njëkk mooy lan. non li ci njëkk mooy lan. mais mooy li ñuy wax loolu mënut a am ci xale bu jigéen bi. mooy lan mënut a am secret médical bi man dama ngi dugg ci li la arrangé li la arrangé bi ngeen di manipuler bi ngeen di manipuler. waaw au moins liir nga ci liir ñun ñëpp liir nañ Sénégal yëpp liir nañ ko. ñëpp kooku du secret l' instruction ñëpp ñëpp yow liir nga ko nañ ko lu ñuy bind des prélèvements Nous sommes des parlements alors que prélèvement est effectué en vue de test ADN Lui prélevé maître très sérieux hein cette affaire là c'est très sérieux le moment venu à la barre du tribunal faut que nous discuter prévu xam confrontation discussion des preuves de loolu ñu jàngul droit ak ñuy manipuler jàng droit ba pare ne manipuler sénégalais yi ñoo naan dañ doon ay preuve ay vidéo ay nangam déet juge bi bu la wooyee confrontation danaan yow yaa phrase bii yow mi phrase bi wax nga le contraire yéen ñaar ku ci wax dëgg loolu mooy confronter les déclarations. d'accord mais maître. dañuy confronter waxi cette fu wax ji woroo. ok léegi nag ki waxul.

amoo ci njort amoo ci lu wóor parce yaa ngi koy di ko waxaat déglu ma xanaa 34 ans parce que dossier non dossier boo xam ni <laughs> maître macha allah lu ne mën na ci am pourquoi ngay insister ci procès procès fanweeri at ak ñeent waaw nga nekk avocat loolu war nga xam lu bëri de xam dossier ni ñuy doxee sama violé le secret de l'institution sama nekk ci institution bi mais ni ma gisee procès yi nga xam ni am nañu bañ a leeral da ngeen yóbbu tribunal parce que tax nañu wax nag a wax ci juge bi xanaa ne xanaa duñ ne dama ñibbi si kër mu jeex rek yow yàpp nga juge bi yàpp nga tribunal yàpp justice ba na nga procureur yow comploteur nga aw ma wax ak yow yow juge bi am ma wax ak yow mayu ma la nga dama laaj ay question yoo xam ni sama intimité la alors que viol intimité la Pape Ngagne Pape Ngagne pourquoi yow doo wax ni bu ñu la ooyee ci affaire viol intimité lañ lay laaj du ñu laaj xaalis boo sàcc du là, laaj suuf soo nangu du laaj de confiance di détournement affaire intime lañ lay laaj. man dama la laaj. dama viol kay lu intime la bu ñuy laaj poser question juge bi ne la. li tax da ngay insister ci procès ma ne moom moo ne juge bi. waaw mayuma la nga dama laaj loo xam ni. loolu day laal sama intimité moo ko wax man man secret professionnel. moom moo ni secret de l'instruction génnewuma ko moom moo wax man maa ni juge mayuma la nga dama laaj loo xam damay. dugg sama sama intimité waa kooku xanaa kon tribunal la koy wax ëllëg boo ko waxul juge bi kay di ko wax keneen ko kan la ci sama xam-xam boo ko ci sama njàng juge bu fekkee laaj na la nga ne tontu woo mooy amuloo loo tontu ko amuloo loo tontu liñ la ji ki diree constant bu ñu waxee lii yaa ko def aji saar nee lii yaa ko def nee na du ci tontu ah juge bi ne kon kat kii moom amul argument kon naa jé jóobal yépp tribunal xam nga lu ci tontu. El Hadj Diouf El Hadj Diouf def na lii El Diouf def Paris El Hadj Diouf topp nañ ko est-ce que loolu pour procès bi moom El Diouf man je suis pas concerné il veut créer une affaire dans l'affaire Donc ma ko may du maag mom, dangeen moto Adji Sarr wax na ci explication ne man dama jommi man Jalsoor may ju ndax moom confrontation bi bëggoon moom El Hadj Diouf la parce que El Hadj Diouf la du attaqué. non moom moom non moom moom jàppul ni confrontation. ah dafa wax ni moom. ay ay maanaam dajale pour par pour toroxal benn doomu aadama. loolu lañ ci no non non non. boo defee loo xam dañ la war a euh, da nga foog ne ñu lay laaj toroxal la yaa ko teg sa bopp comme yow li ñu mbir mi ne topp mbir mu xaw a sensible muy toroxal nit la xëy na kon yaa toroxal sa bopp xëy bu doon beneen procès la beneen façon infraction la dina laaj loolu. infraction viol de moom kuñ ko topp ku def dina laaj loolu ndax sëy ngeen ndax laal xale bi ndax def nga ko lii loolu mënuñu la ko bañ a laaj nga ne bu leen ma laaj wala nga di ma bi ah ñu laaj rek jël ko suufu jaamu fële nga paru wala da nga détourné xaalis bu dee dénkoon loolu moo ko fi yóbbu ñu naan kenn indiwul preuve dañ jox non lieu yow non lieu boo xam yow nga yaakaar am non lieu moom dal yëpp na Macky Sall pour mom yëpp na Antoine Diom yëpp na juge bi yëpp na juge ba dee yalla yàlla yërëm yëpp na ñëpp bàyyiwul kenn foo na ni ñëpp ko ragal da dañ ko doon tëj tëjuñu ko mu ne léegi non lii la waram tay dem tey def nañ conférence de presse léegi nii Bassirou Diomaye Faye suur ko léegi nii ci ngone bureau politique bu Pastef nan dañuy exiger non lieu moo tax ma di leen tontu tontu politique ndax dañuy exiger non lieu man suma parti ni non lieu mënu fee am

كان دو كولير تانيو يلير داي كولير بتب فرات بو ساي مانيبيلاسيون بو بيرنا واي ولا بجاني دا كوموس داكار لو خامني جيو نيه جيو يلا سا تليفون ولا سا سي جورناليست ام سي سيت انترنت نان اي خالي بي تياغالا امنا دوب صاح داو ديغو لول امنا جيكر ديغو لول اي سار امنا دوب am na jëkkër cagale benn amu ci sit yëpp di ay eh, xale bi cagale rek lu ne yëg ko ko doomu jàmbur yaa ngi koy seen ni mu gisee ginnaaw maître non xool ko sooful de mën a tax góor gu mënul téye boppam xalangu amul personnalité dëgg boo jëloon moom. mais maître mais li ngay wax nii day tax xel yu bari ñaaw ci dama dégg benn chroniqueur ñu koy wax Cheikh Bara Ndiaye mu ne Adji Sarr am na benn audio bu mu def di ci wax lu bari ci ay góor ak ñeneen ak ñeneen. yow yow kooku nga xam ne tekkiwul dara. d'accord nga xam ne. Euh, d'accord xaw ma affaire euh, ja jabar. sëriñu Jabraan yooyu da doon loolu man li mu wax laay wax waxuma li muy liggéey Baara Ndiaye boobu man li mu wax laa wax genre Baara Ndiaye li muy liggéey loolu liggéey waaw ak ñi mel ni moom ok genre imam yooyu non xam no yow yaa ma ni dafa jongo ma yaa am noo no apprécier ndaw si waaw moo tax ma wax la audio bi ma dégg ni mm. moom wax na ko te tôt ou tard boobu dina ko génne wala lu di génne ko yow ko xam waa jooju nga xam ne moom gémmiñ gi euh, fenn ba nëpp Cheikh Baara mooy le fenkateur numéro un Cheikh bala moy taxo di fen di fen di fen ngay yoo xool wuy fen mané way waji mën na fen ay way way ki est ce que amna ben benn greuf bu gën maître pour ñoko jox ko sëñ d'accord est ce que benn tane sax ñu wax sëriñ wala Cheikh bala d'accord parce que Cheikh bala koku koku kooku ndeysaan Bara Bara mu xaadim man mi mouride ku tudd Bara dañ la jox cër bu reuy mais Cheikh bala yow yow yow rusloo yow murit mais pourquoi nga pourquoi lan lan mo lan moo indi loolu ci sa diggante ak mom lan mo tax nga wax limuy wax ni Cheikh bala waaw lan dafa am lu mu la def wala lan non dama ko gis waaw muy fen rek lepp lo def la arrangé wul mo dem na fenal Sonko sax gis nga élément bi ma japp ko fen na fen ba fen ba fenal Sonko ba yak Sonko nan Sonko affaire mom la kat gis nga élément boobu gars yi ko xam lu muy wax. d'accord voilà. maître Cheikh Bara fen na ba fenal Sonko le déet. ci mo lay défendre. d'accord alors ñu ñu. yalla ko weer mais non xam nga man da ma wax rek bëgg ma apprécier lo non dama ne gis sëñ Bara muy fen di fen Cheikh Bara mom ma wax la ci ba fenal Sonko ba génné ni Sonko bi li ko waxal mom la gis nga élément boobu

ma ne député ci université di defar étudiants yi man dama am jaar-jaar mais du ma moroom ñi nga xam tekkuñ dara waaye ay charlatan yi bon yi. ok dafa am loo loo démarré léegi ci sa émission muy euh, troisième candidature du président de la république. Mm-hmm. dégg nga boobu ba léegi ñu bari ñi nga xam ni ñoo nekk ci APR. di ko brandir. di ko wax. Mm-hmm. mu mel ni am nañ ci yéene ñoom waa APR am na sax ñoo xam ni def nañ ci presque ay ndaje wax ni euh, tabb nañu Macky Sall mu nekk seen candidat en 2024. am nañ ci droit yow yaa ci biir Benno Bokk Yaakaar. loolu mësa nekk loo xam ni mësuloo ci d' accord. doo ci mës a d' accord. ok xam nga am Ngagne Sénégal yëpp laa bëgg ñu xamee ma est ce que mas naa fa dara man génn ci bi ma ne Abdoulaye Wade amul droit def troisième mandat dama ci xeex bien bien après le 23 juin parce que après le 23 juin la woon bii it Macky Sall masul wax ni dafa bëgg def troisième mandat te même bu ko bëggoon danaa ko ci génne en tout cas daa ci def lu mu mën. ndax lu ko lu rafetal dërëm rek laa bëgg ndax su ma xaree dëpp ñu jàng école ba léegi ti moom ndeysaan li mu def kenn su ko fee def kenn du moom en Afrique léegi Sénégal dafa am leadership monde bi fu ñu toog Macky day ñëw toog président présidence union africaine bi ni mu ko jëlee benn président Afrique ma su ko jëlee noonu sérieux bi dem di toog ak ngand yi ngand bu ne toon naa yow sommet bu ne dem na fa fi mu rehausser na prestige Sénégal comme dit ko Sadio Mané rehausser extrêmement important donc mais nak, lu ne day jeex lu nguuru yalla. dañ ko ñaanal mu terminer deux mandats defi lenen. Nak dañ koy soxla fenen. D'accord. Il y' a pas que la présidence de la république. maître ku bëgg Macky Sall ku ne da ngay and ak mom ci ci li nga xamni. ni. loolu gëm moy day def deux mandats bayyi. bu ko neexee bu ñëwaat parce que bu ku fi da de maître yow juriste nga demande candidature conseil constitutionnel nous valider ko nan ngay def. candidat non nous valider ko la wax. valider candidature Mais non gëwuma loolu. non bu pas. sukkandikoo man ne ci ay ay spéculation non mandat bi at la. dégg man mi la mandat 24. ok man dama man droit ci mandat. non déggu man man ne ni nous conseil constitutionnel validé. candidature am waaw loolu loolu si ñëwagul est-ce que mu di représenté ba loolu di ñëw bàyyi leen affaire troisième mandat bi man sax dama ne du ma ci waxate parce que ñëpp xam nañ sama position tranché mais après am nañ droit ne ñoom Macky Sall lañ bëggaat toujours yow mën nga tere ay nit ñi suñu leader lañ bëgg ba àdduna bi tukki ndax moo ñu doy gisuñu kenn ku ko mën am nañ ci droit mais man ne ma yor sama parti am sama xam-xam jàng droit ni président amul droit troisième mandat. assumer ko nek parce que man intellectuel la dama jang d'accord and masop ak mom ci ngor ma sop ko mu sop ma ñu ay xarit yu wóor xarit boo ñëwee wax xaritam deug du xarit xarit sa géeb gi xassal na sa doom ndey wala koy wax ku lu sangul sa tar la bëgg dogu mo xarit bo xamne suma xarit du ma ko wax dara Macky ma tellement bien même tellement bien man ma bëgg ko manit ñu nekk ay vrai xarit xam naa ne sa neexul ñu bëri mais loolu yàlla moo ko def mais du tere ma ko dëgg nag Pape Ngagne nañ bàyyi naan Macky Sall est-ce que am na troisième man loolu waxam jotagul ki mu ngi liggéey ñu ngi ci tali yi ñu ngi ci terre bi ñu ngi bertee la xaw ma ñu ngi ci defar cité religieuse yi ñu ngi ci université Amadou Mahtar boo bërki Dembo Ndiaye mi mm-hmm. Sénégal macha allah macha allah ñu am ñu ay ay ay terroristes yu ci réew mi yéen nañu ay Mali comme li fa am ak Guinée bëgg instrumentaliser jeunesse bi xale yi ba ba téye leen këf réew mi indi fi dictature Hitler mais sa waay ñaari point la bëgg soulever foofu benn bi nee na fii quelques mois maay nekk président bi mu menacé juge bi amul ma ko wax yéen ñëpp danaa régler seen problème on a encore depuis wax ko passé dans quelques mois je serai président 16 mois Wow. 16 mois D'abord mon suis là. mais président quel du ko nekkee bi ci ah bu que président ne nga ah. vous électoral dans 13 mois je suis président de li ñu ne wax pas le indi. ok suis pas le procureur ko digal ak ma ne kon moom bu jëlee pouvoir bi ah, li mu sosal ñoom Antoine Diom ak ñoom Macky Sall day instrumentaliser donc justice bi pour fayeeku ci Pape Ngagne Ndiaye procureur fayeeku ci Lamine Ndiaye juge d'instruction ci tel ministre de l'intérieur un loolu moo ne moom du du du démocrate mais bi ci des mooy séparation des pouvoirs bi jëm Pape Ngagne maître pouvoir exécutif. man ci mandat bi wax nga demaat judiciaire judiciaire moom gëmul gëmul. la séparation des pouvoirs d'accord.

muy Massata Samb muy ma Mamadou ñoo teg bokk pur bokk ci Yewwi Askan Wi euh, lu waroon mën a ñàkk biir assemblée nationale la parce que ñu bari ñaawlu nañ ko ba CEDEAO ñu ngi wax sax euh, que ni euh, vraiment loolu dañ ko war a leeral acte yooyu ndax jàpp nga ni ci biir parlement war na fa mën a ñàkk wala lan moo ci am ci loolu ban gis-gis nga ci am. tu vois mu ne ce qui se ressemble s'assemble du ñooñu ñu ngi bokk ci Yewwi bu Ousmane Sonko Pape Gueye kenn moo taxaw ñëpp di ko déglu mu mbiri si la dama ko dóor ba subi ñuy yéreem biir assemblée ko wax loolu <laughs> gaa yéen ngaa fàtte Ousmane Sonko la ah Mbéri si la itam wax la mu ko def te député la moom itam. mais dama ne en tout cas ki doon ah, bàkku. non non Mbéri itam ne dama ko dama mais weddiwuma loolu. waaw mais est ce ko taxaw ku ñu wax Ousmane Sonko boo ko yeew yaa wi yeew ni dóor na Mbéri si la ba suma yéreem am na wala am moom kon problème mu dóoree lay lay jaay. kon problème mu dóore moom du bees ci yeewi ak ci Pastef problème mu taal kër ku mën a taal kër kay mën nga mën nga mën nga agressé jigéen ndax suma jabar mu nekkoon keroog jour ci kër gi boobu liir nañ ci Facebook ni dañuy attaqué à quinze heures ñoo gendarmerie maris mu ñëw taxaw fa ba 18 mu dem dafa dem rek boo yegsi boobu ñu ngi yéerndu di xool di yéerndu ay bandi mais maître yow lu ñu la laaj il faut nga dugal ci su man Sonko. mais le moom la cest à Sénégal moom politicien bu bees boo xam ne musiba daan roy mais moom moo Macky Sall am na droit troisième mandat boobu ko am élément Macky Sall troisième mandat ak am élément am ah, bien sûr. pourquoi pourquoi def campagne électorale ci législative yi. Mhm. Macky droit troisième mandat loolu campagne

man d'accord naa ñu weer Ismaïla Madior bu dee def lu war a def. kon noonu la wala weeree Barthélémy Dias ak Sonko ci seen wax waxet mais presse bi damay gis yéen da ngeen leen di faral Ismaïla Madior Ismaïla Madior di yàq dara alors que Sonko Sonko lañ waroon di wax Sonko fi taxaw ni bu ngeen fareetee Macky Sall 2019 am na droit troisième mandat non seulement Barthélémy Dias dëggal ko nee na mais Wade amoon na ci droit waaye xam nga ñun politiciens yi quoi dañuy mbalak yaa dégg bi koy wax. waaw Madeleine Dias est-ce que war nañ ko sax fal quartier chef de quartier ku taxaw ne man dama doon fen ba ma ay moor xam nga Mamadou Diop est décédé à la place de l'obélisque yaa ngi fàttali kilo kilo kàbbaroon Mamadou Diop ba Mbour temps yi temps le commissaire euh, Aronesi yaa ngi yooyu amoon na fi. yooyu lu ñu wax Madou def troisième mandat Bassirou Dia taxaw ne Wade amoon na ci droit mais xam nga ñun pour disee quoi ñoo doon mbalak rek mais c'est grave genre Bassirou Dia ak.

il faut m'am guide ku leen xecc ndax melni ay mouton que la xam nak ci lay xam na ñu bari jang école Sénégal ñu bëri xamuñu phénomène sociaux yi mu tooyee wax ju neexam jooju lemet lemet ko nan son projet bi di nax nit ñi tellement malhonnête tellement manipulateur man comme Allemagne bay Hitler bi ba jël Allemagne magu waxon nako mo gën magu xamoon nako jëlugo pouvoir bi de menacer procureur ne ko bu ma pouvoir bi dans 13 mois diga xam en boobaa danaan le procureur tëj ko jox ordre ay juge où est la séparation des pouvoirs où est la démocratie où est la république ce serait la dictature kon man sama devoir leader du PTP président du PTP le député du peuple l'homme du 23 juin mooy taxaw ci kanamu Sénégal yi jiite xeex bi contre Ousmane Sonko bi nga xam ne phénomène bu dangereux la bu ñu yóbbu foo xam ne ëllëg euh, bu ñàkkee fayda ba mu ba jël fi réew mi musiba lay lay nekk ci réew mi. maître kon nañ ko baaree la route. jërëjëf merci beaucoup maître wax ji moom lu muy gën di yàgg ci Ousmane Sonko nga koy gën di tiire kenn mu ci pexe loolu. Ah, moo euh, mooy alekala ji. ah d'accord merci beaucoup ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax.

waaw sax kéro ba fi jogé defe naa kenn njëkku fa ca ca morgue ba. deug la. dama. lay ñaan té loolu aussi xamna ni def nga ko pour mom mais def nga ko aussi pour man. waaw ah, sama rakk nga maa ngi koy apprécier bu baax. parce que dañu am relation bu yàgg. effectivement loolu deug dama nga dima indil même ay sukkar wéri koor. xam ne sa mag laa. loolu dëgg la il faut que publiquement parce que ni ku baax. <laughs> da ngay lu baax li bi def. deug la jox nga ma cër bu reuy deug la du tere nag mais critiquer di ma poser question sans loolu moy professionnalisme. merci.

man Sénégal rek moo ñor toute ma vie durant xeexkat la école université avocat assemblée nationale ma tax ñu moy le député du peuple fàtte ngeen ni Famara sangone agressé na ma assemblée nationale fekk ba toog groupe parlementaire réunion Iba del Thiam ñëpp toog yàlla na ko yàlla yërëm Doudou Wade ñëpp toog mu ñëw agressé ma ndax booba après 23 juin ñep méré mere ma lu ne dañ naa mais Sénégal boo ko jaral paap te Sénégal gi nuñ ko tabax ci naafeq ak ci ragal te am na groupe boo xam dafa jóg pour terroriser Sénégal yi napp leen këf réew mi pétrole bi lay teg seen bët ak gaz bi ndax ñenn ñi sàcc nañ suuf si ba mu jeex jaay suuf ba mu jeex suuf amatul pétrole bi lañ comploté pour jëli pétrole bi résilier contrat pétrole bi ñoo wax damay dégg jox ko ñeneen ñu fay leen ay milliards ñu def seen poche kon Sénégal yi yeewu leen. sama doom xale yi sama jarbaat yi yeewu leen diaspora bi lépp lu que wax ne da bu ngeen ñëw jox liggéey kàcc kese damay réew mi dañ leen nax ku leen nax gouvernement bi mu ngi def li mën féliciter gouvernement am féliciter député yi pas député yi nga Sénégal député yi taxaw ci euh, ci ci kaw yi yi ay ay député véritablement gàcceel nañ Senegal yu jox yu jógee Yewwi Askan Wi mooy genre coalition boo xam ne dañ ne woon yem du ñu yegg présidentielle la présidentielle koy day demal boppam waaye ba léegi ñu ngi ànd di jéem a naxante ah euh, Ousmane Sonko ga daw gaaw bi bi dañuy dañuy Khalifa Sall rek na day def tournée waree ne du ma Khalifa moom jitu jiitu ma donc donc ñoom gëmante wuñ sax dañuy naxante xam nga euh, jeu de double quoi mais nañ jëmale Sénégalais yi. donc Sénégal ci jam Sénégal ci xéewal di ñaanal suñu chef religieux yi ñu yàgg fi loolu te wér population bi yàgg fi loolu te wér président Macky Sall yàlla dimbale ko ci liggéey bi mu bi mu entamé mu terminé ko ndax intérêt sénégalais yi rek ku demoon bii di ñëw ñu ñu ñu gañe ko ku def rek bii ñu gañe waat ko te nag ñu xoolaat bu baax Aliou Cissé affaire yi mbir yi jërëjëf jërëjëf jërëjëf maître merci beaucoup jërëjëf maître El Hadj eh, yaakaar naa témoignage yi nga wax man moom laa mën a wax si yow xëy na ñu bari nii lañ la xamee ci ci ci yëngatu waaye nit ku fonk njaboot la nit ku fonk ak eh, xarit la aussi loolu mën naa ko seede ndax dund naa ko ak yow ay yoon yoon eh, wax fa dëgg yàlla ci sumay début à oxygène ak Walfadjri taxawaay bu am solo boo xam ni taxaw nga ko ci suma wet loolu itam dama koy rafetlu bu baax parfois ñu amee jafe-jafe sax ci suma nit wala kenn ci wàllu yoon suma xel ci yow lay doon euh, dem ci ay conseil yoo xam ne da koy def xale bu baax nga macha donc ñi ngi lay remercier bu baax maître Diouf bul fàttee abonné bul fàttee abonné